the chase and the hunt And I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out this, I'm immortal When I feel like this, I'm immortal When I feel like this, I'm immortal Don't be scared, stupid, up, up, up, don't be scared képp ku yow ci quartier bi rek di leen wax ne sant ni gis nañ taxawaay bi ak jàpp préparation bi di leen remercier si côté boobu di nañ gën a jàpp rek dans ce sens on est à 72 heures du match xam nañ gën a continuer ñaanal ñu xam nga gën ñu pousser vers la victoire incha allah li ñu bëgg muy ndam te incha allah dinañ ko indi bon pour revenir sa question bon préparation bon je pense que depuis semaine bi yëpp ci état d'esprit positif lañ ko lañ ko lañ ko jëlee defaraat aussi taxawaay rek parce que je pense que ku préparer. préparation préparation saison la préparation saison la woon je pense instant toll yàlla dimbali bañ agsi final léegi bon continuité lay doon rek ak même état d'esprit bi xam nga parce que je pense instant toll l'équipe est en place ñu jag si dernier réglage rek waaw su yooyu nekk quoi pour l'instant nii c'est dans ce sens moo tax ñu jël match bi bon ma woo anciens yi pour defaraat taxawaay surtout parce que comme li ñu wax rek final moom fête la te ça ne se joue pas mais ça se donc tous les moyens sont bons pour gagner ko te ñu ngi liggéey ci dans ce sens bon ñu ngi si dernier réglage nag bon am yaakaar ni xëy nag li liggéey bon semaine bi yëpp dina dina dina yàlla dinañ suturaal ñu am ndam samedi incha allah. waaw si si comme ni ma ko waxee rek joueur moom ku leen xool xam ne ñu ngi si forme je que pare nañ comme ni ma leen koy faral di wax rek je pense que sànq loolu ñëpp a pare pour dem pour participer si finale bi mais boo dee wax ne rek centre yi nañ continuer si même état ngi liggéey depuis le début jaar yoon je pense que sànq comme si ay réglage rek lañ nekk nii te ku leen xool xam ne sax ñu ngi si rythme bon des mooy ñu xaar le jour ji rek moo dem mottali xam nga liggéey bi li ma encore une fois rek ñaan yàlla yàlla yàlla defal sutura may ñu ndam si match bi rek bon loolu question boobu dama si kontaan moo posé parce que je pense que man personnellement moom bi ñu ñëwee santal dénk ma équipe bi li ma njëkk a def mooy dem seeti mag ñi ñu fi nekkoon mën na mën naa tëdd ku mel ni Baba Ndiaye. dem naa toog waxtaan ak ñoom xam nga dem gis les sages mel ni président Iba Niang ñoom père Mbeex ñoom père xalifa Ndiaye ñoom ñëpp daal bon wax leen ni comme ni nga ko waxee rek sa question yi mooy que équipe yi dañ gis ne central yi mbaxal lu nekkoon force am ñaari at yëpp dañ gis ni dafa xawoon wàññeeku te ren dañ ñëw ak ambition bu rëy ambition na mooy lan bon jël département dal jël régional mais nag bala nga naan da nga fay nekk avant tout bala ñu egg foofu mooy ñu dem final ba pare te pour egg final dafa am central taxawaay boo war a am maam nga impliqué ñëpp ñu nekk si quartier bi te je dans ce sens loolu lañ doon liggéey woo ñëpp xam ne ñun ay xale lañ kese lañ ñu lañ dénk mais dañ jël liggéey bi delluwaat leen ko xam ne ñu ngi leen toog di leen déglu heure bu ñu soxlaa heure bu heure saa bu ñu soxlaa ñu soxlaa lu ñu gis xam te naka sulu noonu ñu ñëw orienté ñu ne ah doxalee defee leen nii je pense instant loolu moo nekk force aussi tam ku si nekk sentir ni équipe bi ren instant nga li sa xel ni sans yow du dem luy defar si yow lay jóge mais aussi luy yàq jàpp instant du jóge si yow bon ci logique boobu lañ doon demee depuis le début tey comme ni nga ko waxee yàlla mu ngi suturaal di ñu ci may ndam ñu ngi ko dañu fa ñaan yàlla mu matal rek samedi santol yi état foofu noonu continuer rek loolu la rek mais jafe-jafewul woon quoi cest à dañ da boole ñëpp daal impliqué impliqué ñëpp rek impliqué ñëpp loolu la quoi waaw bon message fair play comme ni ma yàgg di wax rek bon je pense que ñoo bokk yaraax ñu ñëpp muy déggoo di mbaxal ak yeneen équipe yi participé te yàlla daf ñu toog bon aussi ñoom di leen bon di wax ni football nii la da uti mais ndam yàlla moo koy yàlla mooy maye. tey xëy na yàlla dogal na mbaxal ak déggoo ñoo dem final mais yéen équipe ñëw démérité wuñ bon di wax ni rek ñu xam ni lépp benn bopp la lépp yaraax la te ñun dañ war a jël benn euh, exemple ci benn affaire mooy que terrain bi je pense que benn match lañ fiy joué ñu privé ñu ko luñ ko lu ko waral mooy violence. je pense que instant loolu war nañ mën a xeex loolu te ñun waa yaraax ñoo a jël suñu responsabilité xam ni ndam ni génnul yaraax ku si pour ut. mais li nga wax pour doo may sa bopp defal li nga war def liggéey li nga war a liggéey andi jom fulla ak fayda ak état bi positif bu laa la nga savouré ak ñi nga àndal encouragé ñi ñi perte ñi aussi félicité ñi gagné aussi encouragé seen bopp instant xam ne instant ndam daal génn yaraax man daal soro maa ngi woote ñëpp non violence xam nga ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alamin xam ne see yaraax ci gañ message boobu laa laa am lu may lancé aussi di profiter occasion di remercier encore une bi yëpp mbaxal ki fi mag ba ki si gën a tuuti di wax ni encore une fois gis nañ taxawaay bi mais mention spéciale aux bon su ma tuddee Alioune Ndour président Zal xam nga ñoom Pape Mbodj tudd naa ñëpp Sadio aussi su ma tuddee Iba Niang tudd ay père Pedre ñoom père Baba ñëpp tudd naa ñëpp di wax ne daal essentiel xam nga nañ gën a jàppale seen doom ñaanal seen doom pousse ñu vers la victoire xam ne incha allah li ñu bëgg liggéey am nañ yaakaar am na ci yaqin ni yàlla dinañ ci sural ci déplacement bi ak xam nga liggéey bu rafet di leen encouragé aussi si kii bi vraiment liggéey rafet na jaar na yoon vraiment ñu ngi kontaan seen trop di ñaan yàlla yàlla leen yàlla taxaw rek yàlla jàppaleen seen liggéey ba bëgg ak ngeen àgg fi incha allah bu d' abord maa ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp waaw parce que satisfaction bi ma am mooy mbaxal bii mooy mën naa ni sama troisième finale quoi final yi wuute na quoi pour man wuute na par rapport sama côté quoi waaw parce que maa ngi koy bokk ak samay rakk samay frère waaw lii nag laa doon ñaan yàlla xam nga ñu ñëw boo fekkee si ñu ñu ànd ak ñoom feete ko jouer ko ensemble xam nga si fair play quoi surtout. waaw tout d'abord damay wax ni message bi may lancé mooy suñu supporter ñun moom ku ne xam nañu ñun moom dañuy ñëw ak fair play ambiance voilà neexal stade ba mu neex voilà gagné. incha allah si fair play ñibbiwaat si fair play indi ko bi quoi ñi ñuy dajal nag maa leen di wax tamit que le maire gagne quoi que maire gagne ku yàlla jox ndam li ñu xam ni moom la ko jox après ñu souhaité ko bonne chance et bonne continuation mu jeex quoi waaw loolu c'est une fierté fierté la pour ñun ñëpp ñëpp ñëpp ñëw ba gis suñuy rakk jaar fi ñu doon jaar ñëw demaat final mu nekk euh, vingt-quatrième final loolu fierté la quoi fierté la pour ñun waaw ñu leen di ñaanal bon yàlla may leen ci ndam incha allah quoi. waaw li may wax mooy euh, di ko muy mbaxal di no euh, déggoo mariste que ni football foo la surtout final fête la que le maire gagne ñu xam ni foo la ñu bañ fi ne ay violence xam nga joueurs yi nag ñoo war a gën a war a ne bon exemple si ñoom la war a njëkkee supporters yi gis leen fekk si leen ci loolu mais joueurs yi am na nu ñu comporté woo rek supporter bu ñu ko gisee rek loolu mooy indi violence bi ñuy wax supporteru mbaxal di wax supporteru euh, noo déggoo yi tamit ñëpp nañu fair play que le maire gagne incha allah ñaan yàlla yàlla may mbaxal yàlla may ko ndam incha allah waaw. Ah, waaw mais avant tout di nuyu Mak TV yëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen nuyu bu baax yow Yuxum eh, di wax ni rek contentement lañ am quoi parce que tey booy xool ñun depuis 2013 ba léegi dañoo gëj àgg euh, niveau bi quoi kon tey bu ñu fa àggee wax dëgg yàlla tey boo xool tey retrouvailles lañ def grand contre lépp rek pour motiver les enfants pour que ñu dugg ci match bi ak dugub boo xam dugub baax la quoi. mais non à la violence rek parce que violence amul solo boo xoolee te suñu stade bi ñu am dañ cee sonn pour am ko kon buñ ko amee waruñu ne violence football ñettaa am victoire nul défaite ak lu mënti am ne dañ ko teg ci côté sport plan sport ñu xam ne foo la ak ree amul leneen ndax ñun ñoo bokk yarax ñun ñëpp d'accord. waaw mais préparation bi gis nga ko gis nga man mi nga xam ne tey si tuus laa nekk sax dama ñaq. ku ne xam ne ni final 120 minutes la kon booy dem fu sori da ngay sol gasoil bu bëree bare bëri boo xoolee bon booy boobu tey may ñu leen jàmm ñu ngi leen teg daal lu métti di wax ne xam naa deuxième rek dañuy bàyyi ba après incha allah merci beaucoup. dëgg la maa ngi rafetlu kàddu yi di rafetlu lépp di nuyu tamit d' abord waa ASC Mbaxal ak fu mu dëkk sama koñ waa Waldaan ñoom ñoom maa ngi leen nuyu xam nga di kontaan quoi sant yàlla xam ne lii du suñu mën-mën quoi lépp yàlla la parce que dëgg la ay jour lañ dëgg la nawetaan du suñu reef bi mooy suñu première année yàlla def ñu nekk bu premier nekk suñu première année bi ñu finaalu quoi di ñaan yàlla jël ko incha allah quoi waa instant moom ñu ngi si forme quoi ñu ngi sant yàlla di ñaan yàlla li mu may ne yàlla bu mu ko jël quoi parce que ñu ngi entraîné dur di daj lu métti quoi dëgg la bi ñu commencé entraîné yàgg na muy taw ñuy continuer yaa gën a xam di ñaan yàlla ndam rek incha allah quoi bu neexee yàlla déggoo du yóbbu ñooy yóbbu bu neexee yàlla gëm naa ne rek déggoo day fubal si rek mais du yóbbu dara mbaxal mooy yóbbu quoi incha allah waaw maa ngi lancé jeunes yëpp fair play di leen ko wax si jekk ak teraanga quoi ñu ñëw indi seen équipe si jàmm ñu gagné si jàmm quoi parce que dëggal ay coow ñoo amoon nawetaan ni match yeneen yi ñu ko woon fii bii maa ngi ñu woo ñëpp si fair play wax jàmm rek la ñu woote woote ñu dara ak ambiance. duggee man ñaaw nag waaw ah, match ñu ngi koy bu baax ñu ngi koy préparé ñoo ngi si ñu ngi koy waajal bu baax ñu ngi ñaan yàlla muy joxe ndam yàlla ñu yàlla may ndam rek waaw mbégte mbégte rek ak ak euh, fayeeku ndax liggéey bi moo moo fay liggéey bi moo fay lépp nag ginnaaw yàlla coach si ok final bi ñu ngi koy préparé si jàmm ak salaam ñun ñëpp instant yi def na li ñu war a def def nañ lépp peinture nañ ko ñi taka drapeau yi def lépp instant yi nag moom dañuy ñaan yàlla rek mu may ñu ndam ndax final bi dafa nekk final boo xamante ni ñun waa Mbaxal dañ ko soxla na 2013 ba léegi lañ 2013 lañ gëj a jël coupe na gëj nañ xam ba naru coupe moo tax ren ñun ñëpp dañoo bëgg a jugandoo àndandoo nekk benn pour dem jëli lu ñu moom nekkul na final boo xam ni dañuy dem pour manifester dem xool coupe bi ñëwaat dañoo bëgg a dem jël lu ñu moom ndax dafa il est temps dafa jot pour coupe bi jéggi point bi loolu loolu rek lañ bëgg ndax 2017 2018 dañoo finalu ñàkk ga instant nag ñu moom lépp lu ñu war def nañ ko joueurs yi leen war def nañ ko dirigeants yi maires yi supporters yi lépp def nañ lu leen war instant nag leneen rek lañ bëgg taalal suñu loxo yàlla suñu borom mu may ñu ndam bu sedd guy ñu ñëw féete ko suñu koñ mbaxal ci kaw. daa mel ni booy mbaxal dañoo ragal lu ñuy wax de na de ah gaañ waa ñu ne suñu Karim Abdou Karim nooy préparé final bi. kon ñu daan préparé yeneen final yi rek waaw. dana yoo xool te final ngeen si diggante bi ñaari final te ne ngeen ko ñàkk bii nag nekk seen vingt-quatrième final lool yombul si Sénégal àdduna lool yombul da ngeen taxaw ne tamit da ngeen di dem jëli quatorzième coupe bi da ngeen di jëli li ngeen di moom lool pour ngeen jël nan la nan lañ war a mën a def ak nan la pour mu yomb ah gars yi nuyu naa leen di ñëpp di wan tamit mag TV ngi def tamit liggéey bu am solo liggéey ba nga xamante ni kat carrément yaraax du ma ne sax yaraax monde entier ñëpp ciy gis seen bopp muy liggéey bu am solo di di ñaan yàlla yàlla leen si yàlla jàppale di wax ni kat carrément ñun dañoo am fu ñu jugee am tamit faa ne fi ñu bëgg bëgg a dem la bu ngeen xoolee man ba ma juddoo xaw na yàgg ndax bii mooy sama huitième finale ma koy seedaan pour pour ASC Mbaxal je pense que ndax depuis 2002 laa commencé seetaan finalu Mbaxal ba tey jii nii am ñu jël am ñu ñàkk ndax tey jii boo xoolee yaraax lañ wax. amul kenn ku ñu kaa xam ne gën nga ñoo bëgg indi coupe sa biir dëkk ñun féete nañ waaye xale yi nekk suñu entourage ñi ñëpp amul ku ci féete coupe te it il est temps nag dafa jot kon may wax ni kat carrément liggéey bi commencé nañ ko si bismillahi rahmaani rahim bëgg ko jeexal tamit si alhamdulilahi rabbil alamin te it xëy na tamit gis nañ ñaani gis nañ kii si barke Seydina Mohamed dañuy ñaan yàlla nañu yàlla jàppale may ñoo tamit ndam lu sedd guy loolu laa amoon laa xam ne may wax la merci.